maire de Kolda il est candidat. kooku ñu doon faa dem.

deuxième. waaw na dem mais loolu deuxième ba ànd na ak troisième ba ñëpp ànd ko rek a ma ne. noonu erreur boobu ngeen defoon. ci ñëw sa sec.